notre sœur, Madame euh, le maire Zahra Iyane Thiam si euh, donc accueil bi mu ñu defal fii si Sicap Liberté si siège Benno Bokk Yaakaar da koy féliciter parce que boo ñëwee fii da nga xam ne vraiment donc euh, affaire bi mi ngi xeeñ ça veut que c'est bien présenté et c'est ça effectivement le Benno Bokk Yaakaar ñu suivre match bi avec euh, madame le ministre Zahra Iyane avec euh, Seydou Gueye le docteur Pape Malick Diop est là et toute la dynamique Benno Bokk Yaakaar ñuy d'abord avant que ñuy joxe benn analyse féliciter équipe nationale du Sénégal parce que tey vraiment am nañu victoire te lool lañ doon xaar mais booy xool euh, tey vraiment ni ñu jouer au plan psychologique euh, équipe bi newul woon à 100 pour cent parce que am na lu xew dans la tanière loolu toujours bu xewee toujours dañu dem avec euh, beaucoup peut-être de doute des fois donc ce qui explique que on a concrétisé la victoire à la dernière minute victoire boo ko concrétisé à la dernière minute toujours bon c'est pas évident parce que énervement bi bon psychologiquement bon vraiment surtout une équipe qui est favorite donc aujourd'hui li ëpp solo mooy que ne gagné nañ parce que football moom soit da ngay gagné wala nga nul wala ñu gagné la mais puisque gagné nga donc je crois que loolu lañu doon recherché mais gagné nañ dans des conditions psychologiques yoo xamante ne des na mais gagné nañ aussi dans les conditions d'effectif c'est-à-dire toute la tanière n'était pas complète ça veut dire yi ñëw am nañu marge de progression bu am solo bu ñëpp teewee mais aussi bu ñu gën a dal donc objectif bu ñu fixé pour euh, donc indi coupe bi objectif boobu c'est réalisable donc ñu ngi leen di encourager nañu xam ne équipe bu Benno Bokk Yaakaaru Dakar yëpp avec Abdoulaye Diouf comme tête de liste de la ville mais avec toutes les têtes de ñi ngi seen gannaaw di leen jàppale di leen encourager di leen wax ne vraiment nañu dem parce que objectif fu indi coupe bi incha allah c'est à ñun ñu ngi leen di jàppale di leen ñaanal. waaw bu ngeen seetloo vraiment depuis que ñu commencé campagne bi depuis samedi gis ngeen ne vraiment coalition bi yëpp ñu ngi autour de moi non seulement les dix-neuf têtes de liste mais aussi bon les responsables d'envergure de la coalition dans le département de ñun ñëpp ñu ngi ànd di liggéeyandoo te bu ngeen gisee nu ñu population yi di accueillir ak ni ñu ñuy vraiment donc euh, boote bu ñu rombee si seen commune yi wala bu ñu leen seetsee loolu lay wane ne vraiment population yi doyal nañ ci ñu leen yore ñoo xamante ne xeex ak fitna la ñu bëgg dañu bëgg ñoo xamante ne dañu leen yore pour jaamu seen soxla yi donc vraiment ñun on est très optimiste parce que loolu day wane ne dakaar mi ngi xaar dakaar bu bees ak Abdoulaye Diouf saar ak les 19 maires Benno Bokk Yaakaar de du département de Dakar.